ñaari xale yi neexoon nañ de waaw wow arbitre bi soufflé na diggante Dangote ak Papa Bari Bari woxo Dangote Papa Bari Bari ñaari xale yaa ngi lewtoo Papa Bari Bari ndax day songu waaye Dangote te pour la de eh Papa Bari Bari songu na jàppante nañ ñoom ñaar Dangote Papa Bari Bari ndeysaanam Dangote Papa Bari Bari ndeysaan maa ngi nuyu Mansour borom ay bete sama xarit bi kenn moom nee naa la ku bëgg a dugg ci oto mu neex am kilim am lépp eh jël na ko da ngay jëli Mansour sama xarit bi taalibe sëñ Babacar si bi kenn moom waaye Dangote ak Papa Bari Bari ba tey Bari Bari am na lum nar de ndax Dangote dina ko ko may Papa Bari Bari Dangote am na luñ nar de ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi dajale waaw da rof xatar bi na ko daan ko waaye xoolal ma mbooloo mi xoolal ma xale bi la mu indi xoolal ma xale bi la indi seesaat bi. xale la nañ ko bàyyi xel moom Papa Bari Bari bu jugee mbooloom bare koy topp Gorée Grand bi daan na xale baa ngi noonu xale la waaye mbooloom bari lay indi ndeysaan Papa Bari Bari oxo waay Bari Bari waay xoolal ma xale bi la koy topp dafa bari lii topp na lu ne lii bu lay topp daa am loo war a mel waaye man sóor nuyu sama xarit bi borom ay BT